askanu Bouloma ci commune Niaguis région bu Ziguinchor mer futt la ñu daal di yeewoo dara warul ko lu dul ñàkkum lotissement ak yoon bu bon mi bàyyeekoo bu tuut jaar ci biir dëkk bi jëm Guinée Bissau anam bi ñuy dund métti lool ba tax na ñu génn di artu autorité yi. c'est une euh, situation qui nous préoccupe parce que euh, lu ñu ko jàngatee euh, bon état bi de la route neexuñu mais ça fait plusieurs fois. dañu def euh, médiation dans les différents organes comme euh, Walfadjri comme Zik FM voilà mus nañu laaj euh, si l'état de la route la après par la suite wax nañu leen doléance parce que entre Boulom Boulom Ziguinchor par rapport culture maraîchère lu muy doxee si dëkk bi ak la route la lu ñu koy pratiquer vraiment état bi war nañu dimbale au moins au moins même su dee du mu am benn euh, route euh, de pavé voilà vraiment loolu suñu doléance la parce que à l'entrée de euh, à de Bolom soo jógee Ziguinchor pour ñëw à juste à Boutout l'état de la route vraiment c'est c'est déplorable. il y a des du village yoo xam ne des fois yoroon nañu ay taxi ay certaines heures tardives. ñoom ñoo ñuy dimbale des fois suñu amee jigéen bu matu ñoom ñoo koy jël ni ñu koy évacuer à à Ziguinchor supposons s'il y avait pas ces natifs euh, du village la yoo xam ne yor nañu taxi ça sera difficile parce que man du nangu déplacer avec l'état de la route avec l'état de la route pour jógee depuis Ziguinchor pour ñoo jël malade euh, pour yóbbu ko Ziguinchor dañu am jafe-jafe boobu. yoon bi baaxul yoon bi baaxul benn yoon. pour am oto buy dem Ziguinchor mooy doon problème suñuy dem jaay dañuy am problème bu mag chauffeur yi dañuy obligé yeewu ay 3 heures du matin 4 heures du matin pour mën a yóbbu ñii ñi loolu mooy suñu problème te amul benn tata bu fii dugg te fu mu toll nii foo tourné si biir Ziguinchor dëkk yi gën a reculé bu lom sa am nañ tata mais ñun am ñu tata am ñu dara. dañu am benn projet boo xam ne dafa diis loolu suñ suñ bopp mooy un projet de lotissement. projet de lotissement boobu ñu ñoo ko xalaat waa dëkk bi euh, bu ñu commencé def ay réunion de sensibilisation jël ñëpp en charge ñëpp bokko di xalaat si projet bi enjeu bi ak euh, inconvénients yi def naa bu ma ko def nañu quatre réunions de sensibilisation bu ñu weesoo loolu ñu def benn réunion ñuy ne ay propriétaires de terrain ñoo xam ne ñoo bari suuf si euh, dëkk bi mooy Boulome ñuy rencontrer leen waxtaan ak ñoom mbir projet bi lotissement bi ñoom tam ñu nangu ñu ne projet bi baax na lool bu ñu weesoo loolu tam euh, dem. seet suñu mbokk yi mankaañ yi yoo xam ne fii la ñu dëkkoon mais ak problème bu Casamance ñu bëree dem Ziguinchor ñoom tam dañu am ay suuf si Boulome ñu dem rencontré leen waxtaan waxtaan ak ñoom ñoom tam ñu nangu projet projet bi. lotissement bi tous les procédures ont été respectées euh, dañu dañu jaar par sensibilisation d'abord euh, sensibilisation de la jeunesse. sensibilisation des ressortissants de Bolom, euh, dans les, les, ressortissants de Bolom daal Après les charges, par la suite euh, l'ASC, souvent lotissement su amee jafe-jafe yu bëri si jeunesse yi lañu nekk des fois jeunesse yi mooy indi jafe-jafe mais léegi ak euh, avec la relation avec nos frères waxtaan nañu ba suñu juboo si loolu procédure bi déclenché na depuis maintenant on attend le projet de budget 2023 boo xam ne on nous a promis avec ce projet de budget là comme de dinañ def euh, lotissement à à Bolom. état d'avancement du travaux peut-être euh, jox nañ ko carrément dinañ ko commencer dès la mise euh, en place du budget mais ba léegi o n'a pas vu une équipe qui est venue sur place pour faire le constat pour faire l'état du l'état du lieu. problème yu bëri bu amee problème lotissement jeunes yi ñoo koy ñoo koy soulever ñu tam. waxtaan ak ñoom ñoom tam ñu xam ne que wax dëgg yàlla projet bu baax la bu ñu ko jëlee suñu charge moo gën a yomb que état ñu def lotissement bu ñu paree foofu woo jigéen yi waxtaan ak ñoom tam ñoom tam seen kaddu mooy benn kaddu mooy ñoom tam nangu nañu projet bi après loolu la ñuy woo ay services techniques de l'État mooy urbanisme domaine ñoom tañu ñu def ñu benn exposé benn conférence sur les enjeux et les conséquences du lotissement bu ñu déggee loolu yëpp ñëpp na encore jël engagement di nangu projet bi si boobaa la ñu def benn AG général de validation bu ñu defee AG de validation dañuy réunir tous les dossiers man mii maa ko déposé si euh, mairie bi le 29 juin 2021 benn exemplaire si mairie bi de euh, beneen bi si sous-préfecture beneen bi ma jox ko suñu chef de village bi euh, ensuite ma jox ko benn exemplaire président ASC bi président du groupement féminin des femmes no comités ñoo xam ne ñu nekk Dakar section de Dakar ñu am benn exemplaire diaspora tam am benn exemplaire donc boobu suñ première priorité si si dëkk bi bu la am euh, madame le maire daf ma ne incha allah bu soobee yàlla déwén seen budget bi mun nañ ko jël en charge mun nañ ko jël en charge comme ça ñu euh, tàmbali lotissement bi boobu mooy premier projet bi boo xam ne euh, ça ñu tient vraiment à cœur. village bii di Boulam bu ñu sukkandikoo ci askan ba fay yeewoo nguurum Sénégal dalee na fàtte ndax ñu benn infrastructure rawatina poste de santé ci seeni gox. ça fait plus de quatre ans euh, ñu ngi koy souligner ñu on la même euh, suñu plateforme tamit nekk nafa fa case de santé suñu ko amee fii nii bon ça sera mieux quoi parce que suñu ko amee am na yeneen euh, am na yeneen prise en charge boo xam ne. dañ koy def bi balaa ñu dem ba Ziguinchor balaa ñu dem ba Difangor on peut le faire ici sur place quoi. santé bi daal ñun am ñu poste de santé am ñu ambulance am ñu dara suñu amee malade taximaan yi la ñuy woo ñooy ñëw pour yóbbu malade yi Ziguinchor te xam nga ambulance moo gën suñu amoon poste de santé sax moo ñuy gënal. mais am ñu yooyu yëpp ñun daal ñoo ngi nii nii la ñuy dundee lépp lu ñu soxla Ziguinchor lañ koy amee te pour dugg Ziguinchor day doon problème yoon bi mooy problème bi amul oto bu fiy dugg saa su dans le domaine de l' agriculture ku xam euh, Boulam euh, pendant neuf mois pendant la saison sèche nga xam carrément maraîchage bi mooy dox mais maraîchage bi accès des fois accès au produit comme euh, engrais. avec la suspension de l'État, des fois, DAO, euh, un sac, le sac d'engrais qui va jusqu'à trent à 35 000 francs. Après, après ça, écoulement de nos marchandises aussi. Si nous avons fait jardin préparé pour dem jaay si à Boulam gars yi dañuy jógee depuis deux heures du matin pour dem pour dem jaay loolu loolu lu métti métti métti la si si jigéen ñi soo xoolee bu baax depuis commencement bi nga dem yendu si tool bi nga dem pour jaay encore nga jóge fii deux heures du matin alors que jaay bi des fois huit nga ko war a commencer jafe-jafe bu métti métti métti soo nekkee borom sax da ngay yërëm da ngay yërëm jigéen ñi si loolu. problème bu mag lañ fee am am nañ place bi moom riche na macha allah mais insectes yi dañuy produit yi tamit même chose te soo liggéey ba pare njaay bi tamit. am ñu place marché bu kot suñu eggee marché bu kot pour am fa place bu ñuy toog dañuy sonn bay bëgg a dee da ngay obligé teel a dem des fois da ngay toog place jàmbur nit ki su ñëwee mu naan la ni jógal place bi maa ko moom te loolu daa métti nguur gi dañoo fàtte ñun de loolu la ñu yaakaar pour ñun bokkuñu Sénégal. saison des pluies aussi bon comme lu ma koy waxee le retard des denrées ku nekk day débrouiller lu mu war a lu mu war a béyee daal. barrage anti-sel la Jideel dañ ko tabax euh, ay dizaine d'années ay dizaine ay mais balaa boobu euh, fii dañu doon bay keeb di am keeb douze mois sur douze mais bu ñu sampee barage bi barrage bu am échec échec bi mooy lan xorom mi dafa yéeg ba si vallée yi actuellement amuñu amul mangrove jën yi sa problème la pour am ay jën yu baax problème la ji euh, ñuy def maraîchage boobu tam problème la parce que dafa bëri ay problème loolu moo tax euh, vraiment état bi dañ ko war a xool barage bi ñu ñu ko analyser beneen façon boo xam ne mun na nekk rentable dafa bëri ay conséquences bu njëkk bi da ngay am keeb jën yi en pagaille euh, maraîchage en pagaille sans problème mais actuellement il y a di def maraîchage di am jën voilà keeb kenn du ko wax nawet kenn du kenn du béy keeb si si vallée Boulom. ñun daal li ñuy ñaan nguur gi ñu jàppale ñu defar suñu yoon bi parce que yoon bi su baaxee dina am oto yuy dugg oto yi suñu dugg jigéen Boulom yi moom macha allah ay jàmbaar lañu. liggéey rek lañ ñu def te li ñuy liggéey lu ne il ñu yóbbu ko Ziguinchor mun koo jaaye foofu am ñu marché am ñu dara mais bu dee oto bu ñuy oto yi ñuy dugg normalement yoon bi baax du ñu am benn problème. suñu doléance euh, au niveau de l' état bon mun na nekk euh, trois à quatre doléances première doléance bi pour avancement de suñu lotissement bi pour mu mun a mu mun a gaaw case de santé tamit euh, boobu tamit suñu doléance la et puis l' état de la l' état de la de l' état de la route surtout l' état de la route ak ak écoulement marchandise pour ñu mun a am beneen place au niveau du marché Seymour à Ziguinchor pour jigéen ñi suñu jógee fii ñu bañ a am euh, jafe-jafe pour la euh, pour l'écoulement de leurs produits daal. coono yi la waa Bulom di ñaan état ak mairie bu Niaguis mu teggi leen ko ci ne mu gën a gaawee naataange mën a am seeni gox te sax ñu jox leen gëdd.